There's another one arriving, uh, the Senegalese um, airline, looks like President Macky Sall is also landed, has just landed. Um, um, so, uh, okay, this is um, more or less the Senegalese presidential flight, i just been told. And um, uh, President Macky Sall, it looks like just been, is, is arriving also, landing at the, uh, at the Banjul International Airline. So we'll also keep you posted you know, to, to, to, let, to, to let you know, at the Banj International Airport, I beg your pardon. So we would alert. Uh, let them. So uh, winter, President Macky Sall is just arriving. Another one, another guest mm -hmm. arriving for the occasion. He's been expected. Yeah. But before then, uh, let's update our fuller viewers, of course, to know what is actually uh, happening. And right now, what is happening right now is that uh, Senegalese uh, eh, president mo anndanɗa hoore makko kanko woni president makisal kanko kadi ari joni kono eh, ko ɓoyani kadi min i goɗɗo eh, mo anndanɗa hoore makko koɗo iwɗo eh, saudi arabia kono noon min laaɓanani men taw ko hombo iwri toon kono min eh, haalanay on no woniri wo on tigon on anday inchallah pour andon ko hombo woni toon e on ɗon pilin mo anndanɗa hoore makko on andi o koɗo iwɗo saudi arabia oɗo noon mo wonɗo iide ni joni ni ko presidential flight mo anndanɗa hore makko on woni sénégalise présidential flight ko makisal woni e nder flight on ko ɗum men sikki ah, tuma tuma o jippi o inchallah o ɗum on kadi hollirte on iyay mo te meɗen andi himɓe ɗuɗi ɓe no tonka airport ɓe andanɗa hoorema amadou no ari pour waɗgol mo welcome ah, ɗum ɗo amadou no heeɓi solo torop torop comme no ɓe haalirta ɗon e pular ngal ah, kala ko ƴiiɗa andu ko sagu taki ko sabu kadi ko sabu adama baro taki hewti um, back to what you were asking um, this is really uh, important and uh, of course like we all know 20 21 election, that is a December 4th presidential election, was something that um, brought about something. People were talking about a lot of things. Irregularities been um, observed by opposition parties. Of course, the two main opposition parties in the country, that is the GDC and uh, uh, the UDP. And now we are seeing seven head of states from ECOWAS countries uh, being part of this historic event to come and witness, of course, the inauguration of the president. Yeah. Uh, I think uh, if we have an analyst, uh, any analyst who can really go deep down into this would tell us more to understand uh, what it really means for the country. Indeed. We will, we will we'll try to do that, but as you can see again, live from the uh, Banjul International uh, Airport. Um, there, the Senegalese presidential flight, uh, flight there, of course, and um, it looks like it's settling down so that. Um, uh, as expected, President Macky Sall would then alight and be welcomed I believe by the uh, foreign affairs minister moon ñang dafa mel ni kon ni ko waxee gan yaa bi ñu am yaakaar président Macky Sall moom moo dal di yegg si noonu léegi International Airport comme noo ko waxee rek ñu ñëpp ñoo ko gisandoo président Macky Sall nga xam ne nag moom euh, diggé daanaka daal sala kabinet la. lii di Gambie bi moo tax xam naa dafa mayram la jabar ji daf ko defaral ndéewa sax mu door a ñëw fii. wax kay mu ñëw ndéewa jot sax dafa àgga stade tam fële madame Baro yi defal ko ndéewa. mu maa woon ne dafa jegewante Gambie ak Sénégal nu men amut si àdduna bi nu jaxasoo amul benn réew bu ko jaxasoo si àdduna bi. ba tax na tey dafa ndéewoo rek daal di jël flyam ñëw su ko neexee direct si stade bi oo mu dem hôtelam te itam mu nekk ku ku ku ku jegewante ak ki nga xam ne mooy président Adama Barrow. yàggut bu mu fi jógee yaa ngi ko fàttali ñëwoon na Soma. Mhm. ci OMVG programme bu fa amoon donte ne yàggul fii waaye ñëwoon na fi bu bu bu yàggul. tey tamit mu war a ñëwati dafa firndeel diggante Gambie ak Sénégal diggante bi eh, ay eh, doomi ndey lañ kom ni ñu ko waxee réew yi eh, benn la xanaa kay li xaajale rek mooy tubaab bi. Eh, nga am vie français bi ay eh, english ak yu mel way sudul su eh, sorti ci ak def ci la so tay ñu ko doon sentu te tamit fokk fokk naa ne du ñu bari duñ ci am mbégteel gis ko tay mu fekke bés absolutely Amadou ki di president sal bu du diggante Gambie ak Sénégal ci bi ñu men ak nuko yalla teggé nuko yalla rabé mbokk guñ doon. waye tam dafa am lu mu doon ci président bar du nit ku nga xamné kuy mos a di président Adama Barrow bu ko mm. daf ko taxawu trop. den seen diggante daal mburoog soow la. Mhm. gars yi ñu ne def sukur naan parce que nag den jëflante lu am solo jëflante boobu na yàgg na si diggante Gambie ak Sénégal ki nga xam ne mooy président Diouf doon amoon na ko ak ki nga xam ne mooy président jawar mhm. relationship boobu mu ngi foofu. waaw moo waaw moo moo rek ñu ñu update gars yi gis nga bii tamit jooji sii la ñu ñooy war a waatloo euh, président bi euh, ñi gars yi euh, gars yi ñu ngi soog a ñëw nga lii tamit live image si la gaa ngi dugg si. pour ñu yegg si pour ñëw waatloo président bi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo daanaka ñi tamit bi bés bi seen bés la parce que li ci munta am yëpp seen diggante ak njiiti réew mi la. every minute nga gis li ko utalee ak 2017 every two minutes mun nga see wax lu ko utalee ak 2017 sànq rek yaa ngi wax ne Fabakary mu ngay ñëw 19 mhm. January 2017 mhm. xalaatuñ doon sax pour fekkewut ko woon fu ñoo waxee euh, euh, ñi ngay waatloo président Barrow pour mu jël réew mi mhm. gis nga àddina nu mel so nii la nag moom gars yi ñu ne àdduna saan du ko olof yi di waxee Amadou sànni buy dem di ñëw sanni bo xamne soko soo dafa sànnee ñëwaat yow lu gos mu na la gañ lolu ñu ne cotine rek doyna ci si cotine gos xeyna bu dalé du metti mhm. so motakriomi tax réew mi war neen mëna bolo booloo war neen mëna way ñu ñu ci ci ci airport bi euh, gis ngeen ne euh, foreign affairs minister ba ngi nonu Mamadou Tangara mom mo nekk di euh, dalal gan yi mu mhm. welcome rek am ngeen president bi jamono ji mom mu ngi wacc pour naka la fi ci kanam way la ta lolu foog tamit ñu welcome ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, ñëw pour fekk si ko ci euh, bés bi gaa ngi wàcce noonu ci euh, flight bi ñoom ñu jógee ko Sénégal. Mm-hmm. ci pour ñëw teewe bés bi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo comme ni ñu doon wax. diggante Gambie ak Sénégal démb la woon balaa tey. Mm-hmm. te tamit bés yu mel ni yu ci mos a am. Euh, balaa président Barrow tamit. Mhm. ak euh, yeneen président président Jawara yal na ko yàlla yërëm. dafa mel ni yëpp Sénégal bu ñu xewlee dañoo teew ñoom tamit bu ñu xewlee lu mel ni Gambie dem teew. fa mel ni loolu doomi ndey bi mu ngi euh, ni ñu ko gën a dégëral te loolu lu am solo la ci diggante ñaar lu am solo la amul donte nguur comme nu si gannaaw Gambie ak Sénégal sala cabinet la mhm. bu Gambie amee problème ku sa biir di métti da ngay am problème feebar yi gën a garaaw biir si la mu ngi Senegal, mhm. so dafa nek problème sa bopp si suy métti dañoo am euh, bopp tam buy métti da ngay am problème parce que Gambie tam bu fu munta dem fu mu dugal boppam bi dafa laal Sénégal so this is why euh, nguur yi fi jaar yeb jëflante na comme numa la ko waxee won ci gannaaw depuis président euh, Senghor ak Jawara den nga ñëwaat tam Abdou Diouf am relationship ak ki nga xamne moy président Jawara lu bari jaar na fa am na fi jaar eighty one and others lool yeb jaar na fi den tam nga ñëwaat Wade ñëw Diouf tuuti la jëflante ak waat Wade ñëw jëflante moom itam ak ki nga xam ne mooy président Jammeh daan fi ñëw ci indépendance si ay. ay waaw waaw bés yu mel nii fi ñu joxe 20 secondes yi sax bés yu mel nii di fi ñëw kon mu ngi mel ni diggante bi dafa yàgg. te président bu fi toog sa foo génne rek gan gi yagsi na gan gi yagsi na mu ngi noonu président Macky mu ngi mm-hmm. noonu euh, moom lañ doon euh, séntu euh, moom bokk na ci kilifa yi nga xamante ne ñu ngi leen doon séntu pour ñu mm-hmm. fekkee bés bi moom nag mu ngi noonu yagsi na Tangara ak vice président dafa mel ni moom tamit mu fa de wala am na jigéen bu ma seen noonu xam na nu ma joxe gannaaw waaye mm-hmm. waaw kon vice président mu ngi noonu High Excellency docteur Aïssata Touré moom moom moo welcome. Euh, xam nga ne Amadou ñii kenn du leen làppatoo kii du fi ñëw ñu naan kii li muy làkk. bu ñëwee su ko neexee directly local language bi. Ah, kay loolu la ma wax ak bu ko neexee na ko ana Mayra mun na ko mu ngi fa. waaw ana gars yi ana ndéwoo bi soo mbokk gi moom rek la président bi fi wàcce rek. Mm-hmm. munuñoo su dut english bi rek munuñoo déggante yow waaye moom bu fi wàccee bu ko neexee duñ làkk english duñ làkk french te ñoom dinañ déggwante ak Faes dina déggwante ak Tàngal. gars yi nee nañ ma Dakar ak Banjul rek ngay ñëw ngay dégg euh, benn ciin. ak benn ciin ak yooyu te xam naa ne muy moom xam naa ne benn ciin la ko gars yi di tegal. because ceeb bu wala ñu tegal ko supa kànja am naa ne Binta dina xam. waaw because <laughs> supa kànja moom tam Gambie la ak yooyu noonu waaw. Binta. Macky yegsi na. yettina eh, musidɓe ko makisal won ɗon iide ɗon ka eh, images ɗe eh, wonɗe iwde life airport ko makisal woni ɗon kanko e vice président mo country on ɗum woni gambia kañum e mamadou tankara tangara monanɗa hoorema ko kanko woni minister ministry of foreign affairs ko ɓen wonɗo e iide ni ko kamɓe yahuno jaɓɓagol makisal président makisal ka airport ɗon mi accare rek nene kanko nata e der cedde den e eh, hulle seeda pour haalna himbe ben ko honɗum woni be woni ide feendo do ka airport do nene jarama binta eh, an e eh, han sa en ko dami yalon ko wala independence stadium dami yalon ko bi yalon ko ka lumina e kemira lumina at this moment right now luntam dami yalon ko banjun international airport woreketa sénégal présidentoti ka poye mista maky sall e tumo min en mbiyegano ko gambia e anin sénégal iɓe mbakilen pakilgol ti dol ka paadiŋol lom bar gambe ni sénégal mbakilen pakil net because e feŋo feŋ je gambia ni da sénégal konton min ba gambia o konton kiliŋo ba sénégal min ba gambia wala be sénégal so gambe nin sénégal mbiyen mbaɗin kene wala atana nin gambia la kuwo mo manta sénégal bi ka sino nin sénégal la kuwo mo manta gambia bi ka sino a keta ñaabodade to momiyan ko banko ñaton ka fulol kata ñola mabe to nin man folo adama baroto to walla amam folo yaa jammeto nim bir sengorol taymolol sa dawdo kare bajarol taymolom coming tibabol la joya julo wala yes, yes. nene um, sorry let's let's go with the national Vice President and uh, President of Senegal, Macky Sall, and um, we just had the national anthems of the two countries. First was Senegal and then Gambia as the host country. And these are the usual airport protocol processes and um, Yes. Ready for inspection, Your Excellency. Respect the security is from up the airport there. Okay, leg budge. Leg, leg, bus اسفل, leg bus Before then, he would eventually okay. leave to where he would be hosted in one of the hotels. and then, I know, later on, he would join us here at the... Independence stadium. Okay, leg, leg, get him, get him. Swearing ceremony of President Abdel Barrow as he take oath of office. So these are live images from the Banjul International Airport. Um, uh, somebody very okay coming into visit the Banjul International Airport. And now Vice President président Macky Sall bu Sénégal fu nekk ñoom ñaar ñu di def di def foofu ci gan yegg si bi ñu teral dal ci takkandeer di ànd di dox tànk di ay di am la saa yu xalaataan rek di dal ci ci dem fu war a daloo moom des na fi saal waajal bopp soog a ñëw fekk si ñu fii ci ci benn séddoo bu fekkee li nga xamante ne programme bi ci boppam war a waat loo jiite réew mi jiite takk der yi tamit ci seen doxalin ñoom xam ngeen ne. ciri yi nga xamante dañ ko dee defal réew yi gënal gënal gënal gënal gënal surtout njiiti réew yi nag waaw ok vice président Macky Sall yegg ya, si eh, ci Gambia mu ngi noonu ci airport bi xam naa léegi mu war faa bàyyee ko eh, war a fu mu war a daloo gis eh, nga fu ni ko ngi nuyoo ak kilifa yu ko dem teeru foreign affairs minister bi mu ngi fa Mamadou Tànkar ak ñeneen waaye bàyyi président bi moom moo leen di nekk di euh, wonale mu ngi waxtaan ak xam naa kooku dafa mel ni euh, moon ñang mag yi xàmmee na kii de gaa ngi waxtaan euh, ci fuñ taxaw lii mu nekk li am solo waaw mu ngi noonu ambassadeur bu Sénégal nekk fii ci réew yi Gambia moom tamit mu ngi ci ñu taxaw foofu pour welcome président Macky Sall ñoom tamit ñu ngi waxtaan Euh, li yëpp mu nekk ay mbir yu am solo euh, xamante bu am diggante Gambia ak Sénégal euh, firnde bi dafa dafa dafa yaatu xam nga ne président Macky Sall balaa mu nekkoon président nekkoon na prime ministre nekkoon tamit yeneen ministres yi foofu ci Sénégal soo yàgg na ñëw ci Gambia ci tànka yi am solo yore nombre tànk foofu ci Sénégal surtout nag tey mu jiite réew mi soo du fi ñëwee mun nañu wax sax du gan ci Gambia. loolu am solo nga wax Amadou tamit bu mu nekkee prime ministre ñëw na fii. si jamono lay wad yone na ko fi mu represent senegal ci Independence Celebrate gis nga ko won na fi kon yag na fi ñew te wax na kadung kadum ne bu mu toogee président li di rew mu njëkk dem moy Gambia. Mhm. bala mo trouble si benen compte Gambia la njëkk Gambia dem baxon nañ ku fi fi yalla tek ci bop rew mi ci tukki bu njëkk senegal nga njëkk dem te lool moy yoon sa amul non la war demé président borom moom tukki du tukki bu njëkk sax la dem Sénégal waaye fofu la togué sax si maxaama mi fofu ci Sénégal waaye tam bu mo gennat du tukki mu démat fa kon mu melni ni la bu nga xamné ni ku fi jaar di ñëw rek fa nga ko di nga ko bëgg di ko rataxal gis nga ko non xam nga tay neewante bi wax naa la du fam bu mo laka ci biir Sénégal bu ñëwé Gambie bobu la mo fekk dañoo tek French ak English loolu yëpp mu ngi la wone benno gi nu ko yàlla si bi moom rek la su ko defee ñëpp tam jàppee ko noonu euh, bañ a topp rek intérêt si nguur rek moo ñu sonal Amadou waaye nit ñi ñoom benn leen nit ñi tam bokk leen. Mhm. te ba tax na daanaka koo gis si Gambie rek am na mbokk Sénégal. Mhm. te làkk yi ñoo làkk Gambie mu ngi Sénégal Sénégal tam làkk yi fi làkk mu ngi ba tax na tey président bi fi ñëw ñoom ñaar lu ñoo faral di làkk mooy local language waaye dundee indi seen official language English ak French. sa laay def mu nekk lu nga xam ne daal am solo la ñëw na dëkk bu mu nekkul gan ñëw na. tam dëkk bu nga xam ne yàgg na fee ñëw dafa mel ni ku jógee si saalam la ñëw si cabinet soo noonu la soo dina am solo te soo ko bàyyi xel right now ni óor na leen li moo wax ak vice sax te su génnoon du english du français ci olof lañ nekk ci la ñuy làkk waaw loolu nag mu nekk firnde bu am solo bu am solo euh, liñ wax rek tubaab bi ñoom ñoo ñu xaajale am na ñu bari ñuy wax sax su fee nekkutoon tubaab bi nu ñu ko doxale konoon Gambie Sénégal benn réew la doon nekk nda réew mi euh, nu nu ñaar réew yi nuñ mel ak nuñ bindoo daanaka léegi mu ngi noonu di waxtaan ak euh, taskat xibaar yi ñu seet na dañoo mën ñu déglu ko président Macky Sall particularly for of course for Gambia. Uh, I'm very happy to be here in this ceremony who uh, shows that Gambia now definitely on democracy way. So uh, it is very important that we show what happened in this region. So the Gambians have to be very proud of what they did on democracy. It is the weight for development. And uh, as a Senegalese and Senegambians, you know, how proud I am to be here with my brother Adama Barrow, and also uh, I want to congratulate the people of Gambia. Thank you. That, that's President Macky Sall uh, speaking there. Uh, mu uh, wax kaddu yu am solo uh, ci uh, diggante Gambie ak Sénégal waye tamit mu dal di delloo Gambien si njukkal ci suñu taxaw ci walum démocratie waye tamit ndokalé eh, haritam eh, naatangoam di président Adama Barrow mu woné tamit démocratie eh, bi am mo tax tay mu ñëw féké li nga xamante moy mooy bi waye tamit wax surtout diggante Sénégambien nit ñi nit ñi ci bopam mu nekk cadre yu am solo won na mbékté ci nu ñëwé ci bés bi mo ñaaw. absolument no rek la mëna démé Amadou démocratie tam lu baax la donte le Sénégal am nañ ko konya ko ñëkam wa am mhm. réew mi fi tam am nañ démocratie. bu ko waxoon naa ne suñ démocratie bébé la mu ngi am five years waaye lii réew mi dund neen démocratie si juróomi at yuñ génn loolu suñu waxalee yàlla rek am na fi bu baax a baax. Gambien si na ñoo ko faytal seen bopp. Mhm. dénk ko président euh, Barrow pour mu téyel ñu ko mun neen wax na yàqut ko nag because euh, freedom speech bu fi am na fii ni ku nekk am nga sañ-sañ wax lu sa xel lu la sa xel may ni ku ne parti politique bu gis nga li fi am tey. mus over 26 candidates si élection bi Gambie moom bépp ba léegi ñu ngi ko door a dégg loolu tam mu ngi laa woon ne démocratie bu fi nekk nit ñi dund neen ko te yëg neen ko moo tax ñu gën ko sàmm dina si am solo kon mu mel ni war neen mun a gisaat démocratie bi yaatu si beneen five years bii ñëw nii waaye ñoo gis mu dellu gannaaw war waruñoo gis sa tànk yi ko delloo la gannaaw muy lu am solo Amadou. loolu am na solo euh, président Macky Sall mu ngi noonu bàyyeeku na euh, mu nge bàyyeeko ci airport bi léegi mu ngi dem fu mu war a daloo euh, bu booba xam naa dina war a waaj pour ñëw yegg si fii waaye jamono ji ci hôtel bi fu ñu koy dalal foofu lay dem gis ngeen ne